dal leen ak jàmm ginnaaw Mamadou Diop ISEC ak Dieyna Baldé mi fi picc yi doon naawe ci fan yi nu génn Serigne Assane Mbacké marabu politicien bu PDS jël na wàllam ci nag wi moom nag li ko aliwe moo di dafa tooñ doomu jàmbur ba pare bañ ko ci njëlbeen ga Assane Mbacké accepté woon na ni mooy bàyyi doom ji aji ñaar dëmb waaye nag ci ginnaaw bi la yëkkati lu toll ci cent cinquante mille francs jox ko xale bu jigéen bi ngir mu avorté bu ñu sukkandikoo nag ci Walfadjri marabu bi di Assane Mbacké daf doon santage xale bi ay vidéo yoo xamante ni yor na ko yu jëm ci xale bu jigéen bi di aji ñang dem na sax ba di ko menacer de mort maanaam ni day faat bakkanam waaye yamul ci loolu convocation yi nga xamante ni police jot na ko jox yépp Assane Mbacké demul wujji ko lu yàggul dara ci semaine na sax ab primeur wax ni Assane Mbacké divorcé na ak jabaram ji di Ndeye Fatou Ndiaye nekk ab journaliste foofee ca télévision bu Walfadjri waaye nag ci ginnaaw bi la Serigne Assane Mbacké daal di génn ci page Facebook am di wedd bi la million ndax du ëmb biñ ko takkal moo waral digganteem ak jabaram neexatut lu mu ci mën di doon kaa bi doy na waar laaj bi samp nag moo di jamono yi ana opinion publique bi ak média yi nga xamante ni yàq nañ fi lu mel ni xeme di Diop ISEG ci ëmb bi nga xamante ni Dieyna Baldé jiiñoon nag ko ana lan moo waral ñëpp dal di noppi ci skandal sexuel bi nga xamante ni ma marabu politicien bi di Serigne Assane Mbacké def na ko lu mu ci mën di doon rek dañ leen di bàyyi ngeen seetaan témoignage moom la Assane Mbacké seqal jëf ju ñaaw ji. dama amoon benn problème ak euh, ku ñuy wax suñu Assane Mbacké dañu amoon doom mais daf ko daf ko bañ euh, ñuy xamante ci président élection présidentielle yu daaw yi 2019 daf doon ñëw kër ga. fekk temps boobu maa ngi amoon benn idée ubbi benn euh, boutique prêt-à-porter pour jaay ci ay yére ñu jigéen après sama xel ne naa naa ko ko wax peut-être moom dina ci mën a jàpp après ci laa ko wax après mu ne ma garaawul léegi ñaata ngay soxla un million cinq cent wala deux millions mu ne ma mu ne ma garaawul diggante boobu mu dem ci dakaar mais teewul ñu woon déggante après mu ñëw mu ne ma maa ngi Touba léegi est-ce que dañ mën a gisee comme ça ñu xool financement bi muy demee waa waa ci loolu nag après ñëwul ci kër gi. si buntu kër taxaw. ma wàcc fekk cootoom après bi ma commencé loolu mën naa nekk mais man sax fan yëpp maa ngi bëggoon sa numéro ndax euh, dama am cofeel ci yow depuis ma gis la te bëgguma caaxaan tànk caaxaan tax maa après mu ne ma su fekkee ne d'accord nga dama la bëgg a takk ñaareel après ma nangu ko loolu ñu nekk ci diggante boobu tamit demaan na fi dakaar ñuy déggante mais wax na ma trois fois ci déggante boobu ne ma xanaa su ma ñëwee tuubaa di nga ma seet si. ma koy tooj naan ko loolu est ce que daganal nga ko ci la ci la mel ne du gis boppam daal ma yow sa njort dafa ñaaw parce que su ma la waxee ñëw seet bi sa kër c'est parce que mun ma ñëw foofu te kilifa laa ma dem ci mbedd bi. ci kaw ànd boobu ñu doon ànd ci la doom bi sosu au bi nangu woon na ko ba nangu woon ma jox xaalis pour ma yàq ko. parce que boobu màggal mi ngi jub si woon mu ne def ma bëgg a takk si màggal bi te su fekkee ak ëmb bi loolu du mën a nekk mu jox ma 150 mille yàqu ma ko mais dafa foogoon ne moom moom peut être dafa jàpp yàq naa ma toog 4 mois après ma ko message ma ne ko bi dañul après mu commencé na ma yow danga may fontoo ñu ma woo maa wax loolu ak kii commencé yuux foofu daal di coupé si gi ma envoyé ko message vocal après ma ne ko sa réaction sànq de jaaxal ma parce que xaar ma la foofu mu commencé ma yow doo taxawaal ci àll bi après ñëw ne ma euh, maa doom bi su fekkee da nga bëgg lekk sa xaalis man moo ma santaag moo lekk sama xaalis lekk noonu xale bi nag fii ba ñu war buuf du juruma ko du sama doom après ma supprimer message yi parce que bëgguma woon nit dox ba gis ko léegi bi ko suñu waa kër sama yaay woo na ko mu weddi ne musuma xam su ma jox xaalis musuma dig na daf may takk depuis boobu su ma ko woowee du jël su ma ko envoyé message noonu tamit ci laa ko message benn mbokkam ma wax ko ne ko instant bi son naa ci xaar bi parce que woo naa ko ci sutura ba sonn nu mu nag su fekkee mu reconnaître doom ci sutura mu yor ko ndax man mun ma ko yor yor xaalis dafa métti te ba ma dañ ma ci jàppale rek tamit dañ ma ci seetaan tamit ay 14 heures am benn numéro bu ma woo bu ma envoyé message di ma ci ay photo mu ne dafa yor suba vidéo te vidéo boobu avant avant yi yëpp fan yële passé benn nijaayam junjoon na ko koo xam ne doon dama jàppale ci affaire bi léegi dafa bëgg a teg sama gémmiñ loolu moo tax mu génne vidéo bi pour man ma noppi vidéo intime la man am moom moom moo ko filmé moo ko filmé ci téléphone vidéo bi daf daf ko utilise pour di ma ci chantage pour ma noppi pour ma noppi kay wax ne bañ a waxate lu jëm ci moom ak ak doom ji di ma comme ni ma noppi ci 6 mois yi nga xamante ni boobaag léegi daanaka waxuma ci dara te xale bi mi ngi ci sixième mois te boobu léegi doxu ci benn tànk parce que maa ngi ko doon déglu peut-être mu mu mu reculer li mu nekk ba dafa mel ni reculer wu ci bu nga xamalee na ko nag dinaa ci média bi ci la ci la ci la ci la mu envoyé ci la ci moom numéro Tigo boobu envoyé ba vidéo yi te man wóor na ma ne vidéo yi moom moo ko jël moo ko filmé boo xoolee téléphone am fekkoo ci ay vidéo la. plainte tamit plainte naa ko plainte naa ko ñëwul woo nañ ko mu ne leen nekkuma fi maa ngi maa ngi Dakar ñu ne ko kañ mu ne leen lundi ñu ne ko lundi soo ñëwee mardi 16h nga ñëw parce que dafa am dossier mardi man tamit bu mu coupé. ñu ne ma mardi nga ñëw 16h ma dem 15h ba 17h ñëwul ñu woo ko ci même numéro bi ñu ko jot boîte vocale insisté ba sonn jot boîte vocale après laa dégg ñu ne ma génn nekkul Sénégal kenn jàppale ma ci. ci kenn koo xamante ne dina toog ba xalaat ne peut-être dinaa war a soxla dara ci xale bi ñoom dañuy fàtte ne sax peut-être ne yor naa yor naa kii quoi yor naa doom wala am na lu ci war. li ma soxla ci moom mooy mu reconnaître xale bi. moo xam da koy def sutura moo xam da koy def ñëpp dégg ko loolu sama yoon newu ci mooy soxla rek moom mooy mu reconnaître doomu li war ci moom mu def ko parce que xam tamit dafa am dafa am droit am papa bu dafa war te amul benn kayit instant bu mu juddoo léegi ñu ma benn kayit loolu boobu mu ko li war ci moom yëpp mu def ko moo xam nag ci nu mu ko jaarale déjà santam laa ko jox sant sant sant santu santu Mbàkke laa ko jox bu reconnaître rek bu reconnaître lu yëpp man moom bañuma ci dara ba keroog muy reconnaître déjà euh, charge xale bi dafa diis te demagul fenn parce que 6 mois la am ngi ci 6 mois sax laay wax mais dafa diis imaginer nga war a yor xale mu war a màgg war a dem jaay ak leneen ak leneen loo xam kenn mënu koo boole dafa metti te liggéeyum dañ ma ci jàppale rek dina du dox loolu tamit mënu ma ko continuer daf ma doon nax rek daf ma doon daf ma peut moom loolu laa ko mën a tuddee parce que bu ma xamee ne dama dama dama bu fexe na ba ba fexe na ba nu nu mu ma dindi bi la bëggoon te dañu xaarewu ma ko woon fii quoi sama bëggoo bi moom xam na ko bu bax xam na ko me nu mu cee dox tara tamit ba mu jógee affaire bi au lieu woo ko dafa xaar waaj woo ko waaj woo ko weddi weddi ba doyal moom tamit comme dégg na nit ñi wax mu mu mu gëm loolu yamu ji da ko da koo dëggal comme ni nga ko wax man tamit peut-être juuma parce que lii mooy loolu li gëm na li waa kër gi di wax daal boobaa léegi moom tamit doxaatu ci benn tànku jéego daf ma ci seetaan carrément on dirait ne kee la gën a kee la gën a gëm ko man mi rakkam noonu instant bi def ma dara ak xale bi donc loolu rek dafa metti léegi yooyu ba pare bëgg a xale boo xam ne noonu charge xale dafa metti xaw ma xaw lan moo tax ma bëgg yàqu biir bi non boobu dafa bëggoon dafa bëggoon li mu doon def bañ am benn trace rek mi mi mi mi ngi nekkoon ci lu ko neex mais bëgg woon mu am benn trace sama moo ko xamoon sama kese moo xamoon sama diggante ak moom parce que dafa wax ne sama mag bi xam ko ci ci ci ci ci comme ni muy doxalee ni dafa bëgg a bàyyi ba commencé bi nga xam ne def farata mu soog ko mu soog ko wax moo tax wax ma ko woon kenn